jiite. Uh-huh. Sénégal rebelle du ko jiite. Uh-huh. Sénégal ah ku ñu tuumaal yéen it ah mënoo ko jiite. Uh-huh. Ah, ah, ah, Sénégal <laughs> Sénégal di ko ji di ko wante rek. mu dof nag Sénégal yi a. ñu ne day wax lu leen neex yore seen i rajo seen i vidéo nekk ay France. ay Amérique ay Angleterre lu leen neex ay Canada. ñooñu ay rajo la ñu yoo xam ne teg ko dara seen réew. mais dem bitim réew làkk fa. mais di maître maître dafa mel ne da nga dafa mel ne da nga nekk ci forme ba léegi de depuis dix heures depuis dix heures ba léegi mais ba léegi. waaw mais mais mais mais maître maître maître El Hadj maître maître El Hadj Diouf maître xam nga maître El Hadj Diouf xam nga maître El Hadj Diouf maître El ñi ngay wax fan yi am na ay audio yu génn yu ñuy attribué à Mamour Diallo bay wax ne xëy na sax maître El Hadj am na ci audio boo xam ne ne génnagul audio yooyu noonu lan nga ciy commentaire. mais mais jot nga déglu audio bu ñu wax ne Mamour Diallo ak Adji Sarr mhm. Mhm. aha aha mhm. xam nga ñun dañu bëgg dañu bëgg lu leer ci askan wi waaw moom laa dañu bëgg lu leer aha aha gis uh-huh. nga dossier boobu ah. waaw nga dossier boobu. Mm-hmm. kenn waxu ci audio. Mm-hmm. viol lañ ci wax. Mm-hmm. ndax am na wala amul. waaw. kenn lu ñu divertir ci ay audio. viol na suñu ci pas audio. réew mi coow li ñu toog coow li coow li viol la. Uh-huh. ndax am na wala amul waaye audio intéressé wul. Uh-huh. enquêteurs yi dañuy xool dafa viol am na. audio yow bu la nee audio. ñu diw nekkoon ci yu ñàkk fayra yi suñu bopp daa fees jël ñu ay bopp kopp ñun un imbécile wala un vaurien du ñëw ñu jéem a orienté vers la loo xam du intéressé wuñu nekkam suñu yuur gi naar suñu yuur gi dañuy wax loo ay audio ak ay vidéo xam nga lu ñu bëgg mhm. viol am na mhm. wala amul mhm. yaa ko laal wala laaluloo ko du ko laal bul ko jege yow la ñu raay yow lañ fëgg wala mhm. fëgguñu la. yooyu mooy débat bi. Mhm. mais ay audio. ku nekk gi def ay audio. kenn bi. donc daal yow juge bi li nga wax bi tey dugul ci loolu détail yooyu ko. juge lan la ñuy yéen jàpp leen droit. yéen lañ mën a nax. Mhm. droit bi nag lii lañ toppee di inculpé de tel. inculpé de cause de blessure volontaire. ku lu ci saafee ci ay audio audio ak ak benn dóor. waaw mais xam nga xam nga xam nga maître aussi euh, maître waaw maître xam nga xam nga c'est vrai que euh, mbir mi yëfu viol la ñu wax mais xam nga bu bu euh, beneen partie bi jàppee ni complot la non non non bàyyil man ma laaj rek bàyyil bàyyil ma laaj dama ne déet li ma ci audio bi moom li ma ci dégg euh, loolu déggu ma ko ci li nga wax mais dama ne xam nga waaw mais mais mais maître xam nga aussi euh, tey ñun lu ñu tax a jóg mooy loo xam dina leex ci bopp askan wi te te pour mu leex ci bopp askan wi mooy tey il faut que yéen ngeen gindiñu par rapport à ça xam nga tey bu ñuy tuumaal ku mel ni Mamour Diallo du nit ku ndaw ñu ne moom moo def audio ak aji Sarr man man vraiment Mamour Diallo bu ngeen bëggee débat Mamour Diallo def leen ko Mamour Diallo dégg nga ah, ah, ah. waaw salaamaaleykum man daal affaire yi Adji Sarr am intéressé waaw affaire viol laa amoon tey aw may affaire audio laaj ba ci affaire viol mais pas affaire audio waaw vraiment bu ñu ñàkkee fayda yi dañoo affaire yi ay ay affaire audio yoo xam ne bëgg ngeen manipuler ngeen topp si manipulation bi mhm. seen affaire la waaw te dimbale ma moom fulaak fayda dañoo waxi waxi waxi njoogaan kenn du ma divertir viol nga ne audio viol n'est pas viol n'est pas audio du yàlla. loolu mooy rajo. du yàlla nga toog nii laaj laaj yoo xam ne bëgg nañu waay. est-ce que du yàlla ay gàllankoor. waaw maître. non vraiment vraiment am na solo waay.